الحمد لله الذي bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ni moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yee ci mbirum àdduna أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi mbokk Ali Imran TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara gannaaw bu ñu santee suñu boroom subhaanahu wa taala di ko bàkk di ko kañ di julli suñu yeneen suñu sang suñu soppe sayyiduna muhammad ak i waa këram yépp ak mboolem ñu ko topp ba ilaa yawmi diin di nuyu kenn ku ne aussi ci turam ak santam nuyoo lislaam nuyoo bu ànd ak ñaan comme nañ koy faral di waxee rek nuyoo boo xam ni ñaan la waaye képp koo xam ne yàlla defal na la ko na nga xam ne manqué le woo dara maanaam sa mbiru àddina ak àllaaxira yépp jag na euh, réussir nga ci lépp muy jàmm nga am ko jàmm mooy tax nga tala def li nga bëgg a def nga am yërmande yërmande moom mooy tax lépp jaar yoon maanaam àq yeeg droit yeeg yelleef yeeg lu ne rek mu jaar yoon kenn du tooñ sa moroom loolu yërmande moo koy indi ñetteel bi mooy barke barke lu mu gunge rekk mu baril ko yaatal ko def si ay xéewal yi bare bari yu nëbbëg yu feeñ kon yàlla nañu ko yàlla defal ñu ñëpp muy assalaamu ak arrahma ak albaraka yàlla nañu ko am li ñuy waxtaanee nag muy alquranul karim ci jotaayu ak tadabbur bi yàlla tudd ne dafa am barke mubaarakun kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak gis nga wa haada kitaabun anzalnaahu mubaarakun liyat gis nga kon dafa ànd ak barke waaw kon ndeke la ñuy yépp di settantal aaya yàlla yi di ko ànd ak yéen yàlla ñuy barke la suñu temps suñu dund suñu coono suñu lépp allahu akbar kon loolu dafa bokk ci li nga xam ne xéewal bi ñu yàlla defal ci émission bii la muy at tadabbur mooy day ànd ak barke saa su ne euh, tey nag jotaay bi xaw naa wéet waaye xaw na maa wéet waaye su ma wéetee ngeen wéet ndax sëriñ Mbàkke Sylla suñu soppee suñu sëriñ suñu xarit suñu am di jàmm nga xam ne moom la ñuy sekkal émission bi muy at tadabbur euh, tey ñëwut ñëw na sax sax astaghfirullah waaye yaram yaramam moo xaw a suttante xam ngeen grippe bi jamono ji dafa bari waaw grippe bi jamono ji dafa bari moo tax jéem naa forcé toog ci jotaay bi waaye ñu ne daal na bàyyi rek ñun ñu jéem ngir jotaay bi bañ a neen mu ne ma aywa doxalal donc moo tax ñu wéet ci jotaay bi lool yéen itam ngeen wéet lool ndax moom mooy suukaru jotaay bi mooy xoromu jotaay bi mooy lépp li nga xam ni mooy wax dëgg yàlla euh, animé euh, jotaayu ak tadabbur loolu euh, mooy li am ñu koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér lépp coono la rek parce que du toog du noppalu mi ngi daw rek waaw si diggante émission ak moroomam programme ak moroomam ñu koy sollicité guddi ak bëccëg moo tax ñu mel ni moom ak ñoom Oustaz Alioune Sall ak ñeneen ñi ñeneen ñi nga xam ñu ngi ci liggéey bi ci waar wi ah, dañ leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér ñaanal leen yàlla yàlla gunge leen yàlla bañ leen bàyyi benn yoon waxin la rek ndax yàlla du leen mus a bàyyi ndax ku nekk ci toolu yàlla yàlla ànd ak yow wallahu waliyul muminin te ku gëmut yàlla du mën a nekk ci toolu yàlla kon yàlla moo leen gunge moo leen di aar yàlla nañ ci yàlla boole ñun ñëpp kon ñun ñépp ñu àndaat euh, déemu dund ak alquraanu karim tadabbur ko yenn saa yi ndeysaan am ku ma woo wala ñi ma woo ne ma aaya nangam def naa si tadabbur déggee naa ci lii gis naa ci lii ma ne ko lii rek mooy objectif u ak tadabbur waaw lii mooy objectif bi ñuy jéem a settantal di indi ay xalaat ay waaw ay gis-gis ci yenn ayi yenn baat yi yenn saar yi ngir lan pa ñu wax yéen ngeen jëriñu rek déedéet waaye suñu waxee yéen itam ngeen am ci beneen xalaat boo xam ne sax amaanam mooy gën a dal mooy gën a xam-xame mooy gën a rafet waa bi nga xam ne génne nañ ko wala indil nañ leen ko kon loolu mooy yéene bi mooy euh, maanaa objectif bi waaw kon finalité bi loolu la li yaddabburu ayaatihi rek gis nga mbooloo la du kenn rek waaw boo dem ci ratu sot noonu la ko waxee kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyaddabbaru ayaati wa liyatadakkara ulul albaab gis nga ab téere la boo xam ne wàcce naa ko ci yow mubaarakun mu barkeel lool kon ñun ñëpp ñu yëg fa ñu nekk fa ñu toll ne yàlla moo ñu barkeelal waaw mubaarakun gis nga mubaarakun kiy jàng alquran ki koy déglu ki ciy góorgóorlu kiy jàppale ka ci ne kiy aar ka ci ne di ko ñaanal moo xam ci zahir moo xam si baatin moo xam mu koy gunge ci lu mu mën moo xam sax mu neen ko jaajëf góorgóorlu ñoom ñëpp yàlla dugal ne leen ci barke boobule yàlla nañ ci yàlla boole ñun ñëpp kon loolu yëpp ngir lan pourquoi lan moo ko waral allahu akbar yàlla ne li ngir cause bi mi ngi noonu cause bee ngi nii lan moo tax yat yaddabbaru yi ñu settantal waaw am na beneen baat boo xam ne suñu sëriñ Cheikh Fadal Ka mosoon na ko joxe ne moo gën a euh, maanaa déppoo ak baatu ak tadabbur ci wolof dama ko teewlootul xëy na bu dégloo émission bi dina ma ko fàttaliwaat incha allah kon mooy ngir ñu settantal ñu def ay taxaw seetlu ay jàngat tiire ay leçons waaw sur tous les plans dans tous les domaines waaw secteur yëpp nag nga ci wàll luy doxal suñu àddina ak si wàllu lu ñuy waajalal àllaaxira ëllëg li yaddabbaru aayaatihi wa li yatadakkara ulul albaab boroom xel yi les gens doués intelligence boroom xel yi boroom xel yi rafet yi boroom xel yi sell yi ñi nga xam dañ nangoo jëfandikoo seen xel ci lu positif waaw mu daal di ni fàttali daal leen tegaat ci axe daal di leen di orienté waat daal di leen di yeesalaat seeni i volonté seen i motivation daal di leen yeesalaat seen mboole mu taxawaay seeni engagement kon ñooñu ñooy boroom xel yi kon lii rek mooy alquran moo tax li ngeen di ànd ak ñun ci at tadabbur mu neex ñu lool te aussi li ma koy waxee toujours bul xeeb sa bopp ci alquran alquran bokkut ak leneen. tey amaana mën ngaa ñëw ci benn domaine ñu ne na secteur économie bi mi ngi nii walla secteur euh, ñu ngi koy waxatee sax euh, buy wax walla di jàngale di tasaare xam-xamu euh, mathématique mi ngi nii walla beneen domaine moo xam logistique la moo xam informatique la moo xam biologie la moo xam médecine la nga ne ah man de aw ma niveau aw ma mustawa boo xam ne permettre na ma mun a def formation bi wala mën a participer ci domaine bii nii parce que foo il te faut ah de de des des kii base yoo xam ni moo lay permettre nga mën a euh, yëngu wala gëstu xam-xam yooyu la waaw day am niveau bu muy laaj au moins mais alxuraan nag c'est le contraire alxuraan même ki mënul liir alif baag boo ko tegaloon kaamil bi mënu cee liir dara dara waaw mën naa dégg benn baat nga ne ko lii lay tekki baat bi moom mu am ci ay jàngat. kon yàlla ñëpp la woo ci tadabbur ñëpp bàyyiwul kenn waaw loolu dañ ci jëlee misaal alquran ki ko yàlla joxoon mënta liir mënta bind waaw loolu tam benn message la boo xam tekkiwul ne danga nga war a négliger lecture ak bind mais fi may waxee mooy même boo mënul liir boo mënul bind war ngaa mën a am xel moo xam ne mën naa settantal alxuraan mën naa settantal baatu alquranul karim yi dafa am baat yoo xamante ne soxlawul ki dégg arab ku nangul ku nekk déggul arab wala ku am yenn niveau yi ci xam-xam waaw soxlawu ko parce que majaal boobu dafa ubbeeku am na li nga dund ci expérience ci domaine bi aaya bi wax yow yaa koy gën a mën a firi sax ki nga xam ne moom mooy oustaz beeg imaam beeg jàngalekat bi waaw moo joxe misaal ki nga xam ne moom dafa xëy wala dafa juddu ci benn village Euh, way jur yi nga xam ne ñoom la nekkal ak waa village bi lan moo lan lañ xam mooy àll ba bay rek ñëw bay waaw bay bu nawet jotee ñu bay waaw ñoom daal dañuy bay rek lañuy ñuy bay loolu la ñuy dundee ñu déconnecté ak àddina bi yëpp maanaam amuñu connexion ak àddina bi ay portable gi yëpp sax seen yoon newu ci kooku na muy xamee mbay xam ñuy jóge ci mbay ak xam-xam bi mu ciy am ak naka la maanaa mbay bi di évolue ak naka la pepp bi di meññee ba màgg kooku xam-xam bi mu ciy am bokkut ak man nii nga xamante ni bi ay alxuraan yi rek laa jàng dégg dégg dëkk ci ville yi waaw kon foofu mooy misaal bi nga xam ne mën naa leen ko jox ku ñu gën a comprendre li mu bëgg a wax wala li may wax kon ki nga xam ne moom dafa dund benn affaire te alxuraanul karim boo demee ci suratu yaasin bii ci boppam suñu borom di wax ni wa aayatun lahum al ardu almaytatu axyaynaha wa axrajna minha xabban fa minhu yakuluun wa jacalna fiha jannatin min naxiilin wa acnaab wa fajjarna fiha min alcuyuun liyakuluu min thamarih wama camilathu aydihim afala yashkuruun subhaana alladi xalaqa alazwaaja kullaha mimma tunbitu al ard wa min anfusihim wa mimma laa yaalamuun gis nga yàlla la muy wax ci mbay foofu ci agriculture ci agro xaw ma nuñ koy waxatee lépp lu jëm ci mbay wala jëm ci suuf di génn rek di meññ waaw kon tey yàlla xam na ne am na ci yu xam yu bari yoo xam ne boo ma ko laajoon mënuma la ko détaillé ak nu ma ko gëstu gëstu gëstu mënu ma la ko détaillé waaye boo demee ci baykat bi nga xam ne moom amaana jàngul alquran mënta liir alquranul karim lu mu la ciy wax moom la alquran di wax kon kooku mën naa def tadabbur ci domaine boobu ci alquranul karim kon moo tax ñun ñëpp nañu ànd rek di tadabbur alquranul karim euh, beneen bi mooy kenn ku ne si ñun am na ci looy yëngu am na domaine boo xam ne ci nga spécialisé wu am na domaine boo xam ne loolu nga xam yow moom nga jàng moo xam ci français nga ko jàngee moo xam ci arabe moo xam mun na doon beneen langue mais la plupart si ñi topp la arabe la ñu kii arabe ñu jàng wala français moo ci ëpp sax parce que réew mi moom moo mooy demee noonu waa am ñoo xam ne tamit anglais ñu ngi ci réewu anglophone yi moo xam États-Unis lañ nekk Amérique waaw moo xam euh, États-Unis moo xam Canada la ñu nekk mais wala ñu nekk Amérique fu ñu mën a nekk am ñoo xam ne moom ñu ngi ci Europe nga xam ne ñoom it tamit la même chose euh, ay Angleterre rek yi mel. kon ñooñu tamit anglais la ñuy jàng waaye domaine boo mën a nekk rek xamal ne sa domaine mi ngi ci alquranul karim waaw sa domaine mi ngi ci alquranul karim gëstu ko waaw man ci lii laay yëngu ci lii laay euh, euh, xëy ah, nga ne waa loolu moom alquran waxu si ñu la ah bu temps wax na ci nga chercher ay yi nga xam ne mooy wax ci domaine boobu nga tadabbur ko nga médi dina la yokk ci sa liggéey waaye dina la jox xam-xam boo xam ne may la dégg-dégg boo xam ne mënoo koo jëlee feneen ma garanti la leneen mooy soo ko nangoo jox temps aussi nga nekk ji si gëstu bu dee benn ingénieur boo xam ne mi ngi ci dom domaine informatique waaw mu nangoo gëstu alxuraan di ko gëstu di ko gëstu malgré diplôme bi mu ci am moo xam maîtrise la moo xam doctorat maa la wax lii su ko defee benn at maximum ñaari at ñi nga xam ne ñoom la jamonoon tel woon wala ñi muy bokkal même secteur bi dina am différence boo xam day mel ni asamaan ak suuf maa bayna samaay wal ard distance bi noonu lay mel waaw parce que alxuraan dina ko won yoo xam ne comme ni kiwo kiwo kiwo no zak docteur xaw ma fàtte naa tudd bokkul ak docteur Kiyosaki waaw Kiyosaki bokkul ak kooku tamit bokkut ak docteur Kismo aussi waaw mais genre tur yooyu la dama fàtte euh, tur bi teewlootuma ko waaye moom da doon yëngatu ci wàllu astronomie astronomie bi falam yanduru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa min furuj nga ay yooyu qul induru maada fi lsamawati wal وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون aay yi mel noonu dafa bari ci alquraanul karim waaw gis nga dafa bari ci alquraan origine bi mu ñëw ci awalam yara alladina kafaru anna alsamawati wal arda kaanataa ratqaa kaanataa ratqan fa fataqnaahuma وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ay yi mel ni nga xam ne asamaan lay wax astronomie mu gëstu ci xool alquran lam ci wax mu daal di daanu daanu leer ni ko gaañi di waxee allahu akbar mooy nee na moom su dem mu doon tey ndeke moom alxuraan lay jàng su dem mu doon tey lépp lu mu doon gëstu ci wàllu astronomie wàllu asamaan astre yeeg galaxie yeek système solaire yeeg lépp mu ne ci alxuraan lay jaare mooy doon wéeruwaayam moom doo doora jàll ci leneen lii la euh, boroom xam-xam bu mag boobu wax waaw te ci texte bu gudd sax ci anglais ci la ko waxee pour gagner temps moo tax du ma ñëw ci texte bi mais liñ bëgg a wax foofu mooy domaine boo mën a nekk yow domaine boo mën a nekk gëstul alquranul karim ci domaine boobu nga xool ma maa farratna fi lkitaabi min shay gis nga bàyyiwul dara yàlla amul lu mu dugalu ci alquranul karim looloo tax mu mu mat waaw looloo tax mu mat wa tafsilan li kulli shay wa tafsila kulli shay lépp lay détaillé waaw ngir mu détaillé lépp leeral lépp waaw kon fussilat ayatuhu alquran noonu la mel waaw dañoo détaillé faram ay aayam ay versem waaw kon tadabbur bi ñi ngi ci xëccaat di ci woo waat di ci ñaaxaat képp koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun ci émission wu ak tadabbur ñun ak Serigne Mbacke Sylla kon loolu la tey moom daanaka dama ne woon naa def benn genre euh, waxtaan boo xam ne daf ñuy soññaat encore yeesalaat suñuy euh, taxawaay euh, mayaat ñu beneen kàttan bu bees yeesalaat lépp loo xam ne amoon nañ ko ci alquranul karim wala ci lépp lu jëm ci suñu diine muy diiney lislaam surtout lépp lu jëm ci Ali Imran TV ci bépp émission bépp programme rek euh, ñu góor euh, góorgóorluwaat yokkaat cere dolli ñeex comme ni ko gaañi di waxee defaat effort encore euh, ndax loolu rek moom mooy li ñu am fii ci àddina ndax àddina bi moom jeex na ba noppi waaw sooy xool jeexatu àddina maanaam lépp mën ngaa juum waaye da ngay xool sa jëmm yow la nga fi am wala la nga jot am ak la dese nga comparé la nga dese mënoo koo xam waaye noo ko comparé ko amaana ñu bari suñu ñoo xam ne la ñu dund dootuñu ko dundaat waaw kon nañ góor góorlu bu baax yàlla sàmm ñu aar ñu barkeel suñu dund waaye boole ñu ci ñi nga xam ne seen benn dërëmu tiyaaba mooy ëpp barke gën a foor seen junni wala million yi wala milliards yi baakaar waaw ndax yàlla moom bind na doomu aadama waaye natt nattu ko ci baynal xasanaati wa sayiaati bayna sayiaati wal xasanaat ci muy def lu bon ak lu baax loolu nattu la yàlla binde noonu doomu aadama moo tax mu ubbil ñu mbooleem bunti tuub mbooleem bunti ay jumtukaay yoo xam ne wala ay moyens yoo xam ne occasion yoo xam ne mën nañ cee tuub dellu ci moom looloo tax mu def loolu kon loolu lañ leen indiloon tey ci seen jotaay ak tadabbur Eh, di eh, ñaan borom bi subhaanahu wa taala ñu fekkewaat bii di ñëw incha allah ànd ak seen si la di ko ñaanal di ko gërëm di ko sant bu baax di gërëm mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci plateforme bi tàmbale ci oustaz Alioune Sall suñu sëriñ suñu xarit suñu pap suñu lépp al oustadu daa al hakim waaye tamit di eh, nuyu di sant di gërëm di encourager waa soxna Faat Diallo ci effort yi muy def ngir ngir kër gi taxaw waaye tam di gërëm di sant Pape Doudou ak équipe yëpp waaw ñoom ñëpp nag bàyyiwuñ kenn ak mboolem asatise ñoom seex Dieng ak ñoom Mor Mbaye ak ñëpp képp koo xam ne yaa ngi jéem a def effort ngir Ali Imran mën a taxaw mën a avancer ñu ngi lay ñaanal yàlla di ñaan borom subhanahu wa taala barke alquran wàcc yow ak sa njaboot wàcc ci mboolem ñu ñu topp waaye wàcc ci képp koo xam ne yaa ngi góorgóorlu di avancer loo kër gi. waaw ci lépp nag ci zahir ak ci baatin ci ñaan waaw ñëpp mun nañ cee participer même bu dee ñaan waaw nga xam ne yow ñaan nga mën am nga yéene lu nekk waaye xëye na yàlla mayagul ko wala jàppaneegun waaye ñaan moom wax dëgg yàlla ku ne mën na ko kon ñu def ñaan te ñaan boobu sax bu amaana sax mooy gën a foor loo gis kon bu ñu xeeb suñuy ñaan kon di ñaan borom saxaanu may ñu dégg ak topp seen mbokk seen xarit Aboubacrine Traoré di ànd ak yéen ci émission at tadabbur ci Ali Imran TV ñuy doxaat joxewaat dig dig daje euh, joxantewaat dig daje ba samedi bii di ñëw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi alhamdulillahi alladi agnaani wa a'azzani bi tila bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali yi TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran mooy seen bi nga xam ne mooy leen di jàngal seen diine jëleen yaay ci mbirum àdduna